Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements comme ça ñi nga xamné ne nek suñu kap kané place yi def fi ay mbar yo xamné mbar yi lu né man na fé laqtu lu né man na fé dugg say say man na fé dugg lepp man na fé dugg ci lo xamné li lii maanaam ci dëkk bi génneewul taru dëkk bi ndax ay mbar mbaran yo xam ma day tali tay ji ak lak bu amon kep, manam man na fee def musiba mo xam mi mii kenn dula ko wax man lool la jëk xalaat deuxièmement oto yi nga xam ne tey jii oto malaaka la mën nañu jóge fu ne làmb doo jot frein ca ñoom dañuy xëccoo oto yi ak tali ñoo ki fe ay metrop, metti trop ñi xam ñu ngi nekk ak ñun tam doon ñam ni fay ay liasse mais tam ñu dañu war a seetaat xaar seen doxalin bu baax a baax ndax ni xëyte nekk sa wetu place sa waxe mu jaay nak dara yu won lo xamne ci tam jekul jaadu tam na nay te señ bi tam wote wut lol ci dekk bi li wote ji boole xol yépp and ñun ñëpp doon benn ya sun borom ñu